I'm from Vietnam. I like Admon TV. Senegal we win. I'm waaw di am mbégte rek ak contentement di ñëwaat ak yéen ci émission on refait le match on refait la match nag day émission boo xam ne saa su équipe nationale Sénégal joué dañuy joué waat match bi tey nag ma koy defal rek le grand consultant le grand expert Mbaye Fadia maa ngi lay nuyu di la ziar. waa as maa ngi lay fay di nuyu képp nga xam ne yaa ngi seetaan. émission bi di jaajëfal gaynde yi di jëf jaajëfal aussi seen njiit muy Pape Thiaw euh, ndax démb xale yi def nañ match bu correct wax dëgg yàlla. waaw jërëjëf euh, mbay Fadia xale yi def nañ benn match bu correct comme ni ko Sénégalais yëpp gisee muy match boo xam ne franchement parler match bu rëy la xale yi def muy ñaari deuxième mi yoo xam ne dañoo wuute gis nañ en première mi-temps équipe nationale Sénégal tamit joxe na. tamit gis nañ tamit en deuxième mi-temps tamit équipe nationale Sénégal euh, joxe mais tamit gis nañ Ivoiriens yi tamit en premier mi am nañ fi ay bal yoo xam ne wax dëgg yàlla ay bal yoo xam ne waroon na mën a dugg waaye chance moom dafa ànd ak football. comme ni ñu koy defee rek chaque jour on refait le match dañu bëgg rek man ak sama expert bu mag bi rek muy Mbaye Fadiar rek ñu wax ci matchu démb bi tey jii nii Mbaye lan nga ma mën a wax démb ak ban jàngat nga jàngatee matchu Sénégal démb. waa jàngat bi may njëkk a def mooy gis nañu équipe bu Sénégal bu nga xam ne équipe bu discipline na ci biir terrain bi surtout ci loolu ci premier mi ak deuxième mi-temps bi yëpp dajeeg équipe bu bu nga xam ne dafa ñëw jouer collectif parce que lu tax moo wax dafa ñëw jouer collectif mooy entraîneur bi dafa basé wu ci euh, onze yi mu teg huit joueurs ASEC d'Abidjan lañ maa na ko doon wax fii keroog ne la bu fekkee ne changement amul euh, onze joueurs ASEC mi ngi ci liste bi ba tax na entraîneur bi dafa ñëw andi mën nañ ne ASEC la andi ndax onze ci onze départ yi huit yi ASEC d'Abidjan lañ nekk am na kenn ku ci nekk Sao San Pedro am na ku ci nekk bi mais huit yi ASEC lañ nekk mu dajeeg équipe bu bu nga xam ne euh, mën nañ ne derby yu Afrique de l'Ouest la Sénégal ak Côte d'Ivoire toujours day métti Euh, mais ma delluwaat tuuti ci parce que keroog am waxtaane woon nañ ne euh, sànq euh, Sénégal ak Côte d'Ivoire mosuñu ci daje mais daje nañ ci 2009 lu ñu isappe woon la daje woon nañ ci 2009 dañu mas nii doon parce que 2009 Sénégal Côte d'Ivoire Tanzanie ak Zambie ñoo bokkoon pool. Mm-hmm. Oh, mais nag toujours dafay metti mais dafa daje ak bu Sénégal bu nga xam ne taxawaayu équipe bu baax la Pape Thiaw andi. Mm-hmm. ba pare am ay joueurs yu am métier muy ci milieu bi muy ci défense bi muy ci attaque bi. ba tax na euh, loolu ñu match bi ñu joué noonu moo indi victoire bi ndax ñafe nañ ko bu baax di début au fin xale yi ñu ngi ko doon ñafe du ci milieu terrain bi min du ci defance bi du ci du ci attaque bi. dëgg la waaw dëgg la dëgg la comme ni nga ko waxee rek xale yi ñafe nañ euh, bu baax a baax parce que gis nañ ci ay joueurs yoo xam ne tamit euh, démb moo soon moo doon seen première mën nañ wax ni seen match officiel mm-hmm. ci équipe nationale Sénégal. pas muy comme ñoom musaa Euh, Konaté su ma jumul mhm. waaw Moussa Kanté defe naa Moussa kante bu benn Dakar Sacré Cœur gis nañ ko démb tamit mu am envie bi nga xam ne tam sax envie pour man sax daf koo xaw a pénaliser ndax li mu démb mën na lu ëpp loolu waaw xam nga itam au niveau moo demee noonu parce que am na ci ñu nga xam ne jotoon nañ bokk bokkoon nañ ci ko safa cup bi ku mel ne ay Moussa Ndiaye mhm. bi dugal bi ku mel ne ay Lamine Camara mhm. euh, bokkoon nañ ci ku mel ne Ilimane Cissé aussi itam am na expérience parce que jotoon na génn dem defi étranger ñëwaat Euh, gis nañ ne aussi itam Ousmane Diouf ci axe central bi jour bu am niveau la itam ndax nekkoon na Casa joué na ay Coupe d'Afrique ak Casa euh, ren mu ñëw Teungueth FC ñu gis aussi itam ci attaque bi xañ na man mën na am fa doon xaw a faible tuuti parce que am na ci jour am na ci ñu nga xam ne jotaguñu woon génn dem ci participer ci ay tournois international mm-hmm. euh, ndax équipe bu Sénégal démb ñu bari tiitoon nañ jàppoon nañ ne li Pape Thiaw ñàkk muy muy ñetti attaquant yi nga xam ne ñoo nekkoon meilleur buteur Sénégal daaw du am du taxawal équipe bu remplacer ñooñu mais booy xoolee ci euh, match bi mm-hmm. euh, Sénégal dafa dominer Côte d'Ivoire ndax dafa ko dominer mm-hmm. euh, lu tax ma wax ko mooy boo xoolee position cinquante quatre quarante six la mm-hmm. nga xool orzo deux Côte d'Ivoire amul dara nga xool corner Sénégal am na huit Côte d'Ivoire am cinq nga xool tir total Sénégal def onze Côte d'Ivoire def dix nga xool aussi tir cadré Sénégal def 4 Côte d'Ivoire def cinq mhm. nga nga xool itam ni itam euh, ci tir non cadré aussi itam. Mhm. Euh, Sénégal def cinq Côte d'Ivoire def 3. Mhm. muy total faute aussi Côte d'Ivoire moo ñu ëpp ay faute parce que Sénégal moom tàmm nañ ñoom bariwuñu lu ñuy def faute. équipe bu ñu joué loolu rek nga ñuy gagné parce que Sénégal bariwuñu lu ñuy tappale. ndax boo xoolee 16 la Côte d'Ivoire def Sénégal def li nga xam ne moo di 13. benn carton jaune moo am ci match bi. mu nekk taxawaay bu nga xam ne xañ na mënoon nañ ko sax gagné 2-0. Mhm. ndax euh, gis naa ne deuxième bi bu Sénégal boobu suñ demoon ci VAR bi. Mhm. Euh, dinañ ko dinañ ko accordé. Mhm. gis naa aussi nan penalty bi itam ñàkk concentré wu moo ci am. Euh, parce que Sidibé moo tegan di du di bay waaj a dóor. ci lañ dóor a andi kamara lamin aussi bonul. mais xañ na parewuloon pour dóor. ndax lamin ñëpp xam nañ ne coup franc ci surface bi daf koy dugal. ndax coup franc boobu mu dóor mu dal ci baar bi moo andi bi Moussa Ndiaye bi mm-hmm. mais na xañ na parewul woon bi muy door penalty bi mm-hmm. loolu moom mën nañ ko ko baal waaw loolu mën nañ ko ko baal ndax euh, raté penalty ak dugal penalty moom moo ànd euh, jour moom loolu moom euh, du nekk loo xam ne tamit mën nañ ko ko reprocher parce que kuy dóor penalty rek moom mooy rate te Lamine moom xam nañ ko c'est un bon tireur waaw xëy na nag penalty boobu mu rate tamit indi na ci benn coup franc boo xam ne moom moo indi but bi waaw dañuy ñëw tamit rek di ñëwaat rek ci ci première journée bi muy CHAN 2023 bi parce que ñu ngi def 2022 lañ ci def mais teewul rek comme ni ñu koy defee rek chaque jour rek ci Asmoon TV revivificateur des valeurs doxuñu lu dul rek ci sport di xool rek nu sport bi demee kanam surtout ma surtout suñu sport muy Sénégal sunu football local parce que gis nañ euh, franchement parler euh, sunu football local mi ngi jug ci kaw parce que gis nañ suñu équipe nationale local bi prestation yi muy def. Euh, ci biti waaw loolu. ndax ndax boo xoolee Sénégal 11 ans 2011 la gëj dem la gëj qualifié CAN Mhm. onze ans ngi ni demul euh, ren mu dem amagul na benn victoire mhm. mu dese ko deux matchs mhm. euh, kon mën nañ ne naa bi ak li fi li ñu am ci ay départ yëpp ñi fi des niveau bi mu fi ba léegi daal niveau bi mi ngi fi ba léegi parce que loolu moom xam nañ ko ndax ñu ngi dem chaque jour ci ci Ligue bi ak ci Ligue 2 bi ba ci national bi yëpp ñu dara Asmoon TV révivificateur des valeurs chaîne sport la 100 cent dama naan sax 500 pour cent loolu rek la ñuy def bëgg rek ngeen kontaan yéen internet yi ñu bëgg nag ngeen i bës cloche bi di abonné ci ci chaîne bi parce que loolu moom mbekk lay doon ci ñun di ñu wax rek di ñëwaat rek ci première journée bi nga xam ne tey jii nii moom moo amoon ci ci ci CHAN bi bu ñu ñëwee ci Algérie ak euh, Libye Algérie moo ko gagné 1-0 Éthiopie moom ak Mozambique dañu match nul 0-0 bu ñu ñëwee si RDC RDC Congo waaw 0-0 moom ak euh, Ouganda euh, ñu ñëw ci. beneen équipe bi moom waaw Côte d'Ivoire Sénégal muy un but à zéro Sénégal moo ko gagné démb ñu am ci contentement di ci féliciter les Lions particulièrement l'entraîneur Pape cow parce que comme ni may ñëwaat rek di ci waxaat ci moom ndax ñaari équipe laa wax rek laay wax chaque jour moo moo moo moo def benn équipe bi moo def euh, qualification deuxième équipe bi tamit ñëw def euh, euh, maanaam Coupe d'Afrique mooy compétition yi ñu ko ci félicité parce que yombul woon nga am ay joueurs ay buteurs yoo xam ne tey jii ñoo joué ba qualifié équipe bi après génn dem signé ji contrat nga war xoolaat équipe pour dem ci compétition bi loolu yombul te macha allah gis nañ sa premier match euh, ni prestation bi nga xam ni moom la sa équipe def ñu ngi lay jaajëfal di la félicité di wax ni nag euh, Mbaye xam naa ni avant may ñëwaat ci yaw si sa si suñu suñu fin wu émission parce que demaloon Sénégal bi nga xam ni moom la doon joué démb gagné ci 1-0 ma demoon seeti Abdou Yoro Ndiaye l'international muy ancien joueur douane mu def ay jaloor yu mag a mag a mag ci Sénégal nekkoon suñu capitaine en équipe nationale junior suñu première qualification en Coupe d'Afrique Île Maurice en 93 moom moo ñu yóbbu woon waa 93 ñun mu ñoom Tony Silva bëri ci waay Salif waaw Salif après la ñëw waa après la ñëw ci beneen bi ay Tete Diagne Léonard Amadou Souleymane Bara Fomba waaw ñoom ñëpp ñu ngi ci woon waaw mu nekkoon équipe boo xam ne macha allah équipe bu amoon solo la équipe bu bu rëy la woon su suñu euh, junior boobu après gisal gis dem nañ tamit seeti Badara Badara sen waaw Badara Sène waaw euh, mhm. Wakam mhm. waaw dem nañ tamit Pape Maysa tamit muy nekkoon ancien joueur muy ancien international ñoom Vincent ñoom ñëpp seeti nañ leen woon ak Ngiraan Ndaw après nag dem tëjee ci sunu l'international moo ni dool ñu koy wax Moussa Badiane muy jouru ancien jouru jaraaf di ancien international def ay jaloorem damay ànd ak gars yi rek dem seeti internationaux yooyu. Asmoon TV révificateur des valeurs. waaw di am mbégte rek waaw Mbaye Fadiane di wax nii rek waaw gis nga rek Asmoon TV moom fu nekk lay génn waaw li ñuy wax rek mooy émission on refait le match on refait le match nag dañ koy def ak les anciens internationaux ak les grands sportifs yi nga xam ne tey jii nii mën nañ wax ni xam nañ euh, bu baax ci football tey nag ñu gis Sénégal gagné démb 1-0 Côte d'Ivoire muy match bu rey tey tamit mënuñu dem du ñu jaajëfal euh, féliciter xale yi ba pare jaajëfal euh, l'international Pape Thiaw parce que yombul parce que gis nañ liggéey bu mag bi nga xam ne tey jii def na ko bu ñëwee ba léegi yore équipe nationale bi gis nañ équipe bi nga xam ne tey jii nii moo qualifié équipe bi bokkul nga xam ne tey ji ni moom mooy jouer compétition bi kon dañ koy jaajëfal parce que bi mu qualifié gis nañ équipe bi joueur yu bëri euh, dem nañ génn nañ am ay contrat tey jii nii mën na ci cité ñu bëri moom mooy ñi nga xam ne tey jii sax daaw ñoom ñoo jël meilleur buteur Sénégal muy Bourou Sambou ak euh, beneen joueur bi nga xam ne tey jii ni moo nekkoon euh, génération foot waaw ñu wax ni rek comme niñ koy defee chaque jour rek dama ciy am mbégte di leen ko defal ñëw fii ci King Fahd Palace ci terrain bi ñëw fekk fii yi nga xam ne fii la ñuy defaree seen muy Abdou Yoro Ndiaye di Ngiraan Ndaw di Badara Sène di Maysa ñoo xam ne tey jii di mën nañ wax ni def nañ marqué nañ seen empreinte ci football Sénégal waaw may wax ni rek mbay damay ànd ak yow rek ñëw wan la ak Abdou Yoro Ndiaye intervention bi nga xam ne tey ji nii war na mën na ko war mën a def ci match démb bi dem ci Badara Sène dem ci Maysa après ñëwaat ci plateau Abdou Yoro Ndiaye waaw maa ngi maa maa ngi lay nuyu ah maa ngi lay ziar dama ñëw fekk mun a mun mun mënoon naa la bàyyi nga dem naa ni ndox waaw nga dem naa rek comme ni ma la ko waxee woon waaw damay ñëw may mais mënut a ñàkk waaw garaawul bàyyi ko mu ñëw parce que sunu sunu ay futur Yoro Ndiaye la ak Maysa ak Vince waaw ñoon loolu loolu loolu mënut a ñàkk waaw waaw loolu rek waaw parce que ñu ngi fii comme ni ñu koy defee rek chaque jour ñu ngi ci émission on refait le match ma taxaw fi nag ay anciens joueurs yoo xam ne te ji ay anciens internationaux yoo xam ne tey ji ni def nañ seen jaloore ci football waaw di ñëw rek di nuyu gars yi di jox euh, Vince mu nuyoo waaw ngi nuyu ñëpp di nuyu waa dëkk bi yëpp di wax que euh, c'est Benjamin Carvalho ancien joueur de l'AS Ouakam waaw match bi suba. match bu démb. incha allah voilà d'accord merci jërëjëf ma ñëw ci l'international Abdou Yoro Ndiaye maa ngi lay ziar. bon maa ngi nuyu waa panel bi yëpp. Uh-huh. les anciens internationaux du Sénégal ah di nuyu le président Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh di nuyu vice président euh, El Hadj Ousseynou Diouf di nuyu Sadji di nuyu ñëpp waa tey moom. il faut tey moom ci Pape Thiaw la ñuy consacré wu quoi allah. incha la ak Tigis. waaw Tigis ma ñëw waaw. waaw waaw Tigis moom boobul turu waa Wakaam la quoi mais ah. Maysa Binta Ndiaye la Sénégal xam. Ah, ah. ancien international ancien joueur de l'US Wakaam. di nuyu comme ni ko grand Yoro waxee panel bi yëpp di nuyu gars yëpp di nuyu président di nuyu vice président. di fas yéene jàggalante ak grand as pour. def benn confrontation par rapport ak match démb bi Sénégal bi. kontaan nañ ci yow Meissa waaw damay ñëw rek ci vingt si trente secondes rek lan nga gisee match démb bi. waaw waaw ça s'est bien passé Pape Thiaw moom dañuy wax wax dëgg dëgg yàlla. Mm-hmm. mu ngi gérer équipe bi quoi munoo dem ak onze joueurs onze joueurs jóge dem mm-hmm. nga boole si yeneen onze joueurs pour préparer premier match ba pare am si victoire maa koy félicité. Uh-huh. merci merci Vince kontaan nañ sama te jii nii ku wax Abdou Yoro Ndiaye wax xam ni ñoo defandoo. maanaam suñu kestis yu bari ci équipe nationale mu ñu ànd ak moom dem Coupe d'Afrique mu jiiteel ñu nekk suñu capitaine waaw muy nit ku baax nit koo xam ne tey ji mën nañu wax ni émission bi ma war a def ak moom fa lu yu bëri di leeree ci moom Abdou Yor maa ngi lay ziar. Euh, maa ngi lay fay as. waaw euh, di nuyu waa panel bi yëpp. Mhm. ci kaw ba ci suuf di commencer par le président Cheikh Ahmed Tidiane Seck ak le vice-président Cheikh euh, El Hadj Ousseynou Diouf di nuyu sage yëpp di nuyu sama naataangoo yi yëpp waaw sans exception sans dañuy wax rek parce que tey jii nii xam naa ni dañu mi-temps te yaa ngi dem dama bëggoon rek euh, ban jàngat ngay def ci match Pape Thiaw démb bon man je vois que Pape Thiaw il a beaucoup de mérite parce que le peu de temps qu'il a mu defar benn équipe bu solide defar équipe bu baax boo xam ne démb xam vraiment opposition bu dëgër la def ak euh, ivoiriens yi il a créé une une, une très belle équipe bon léegi il faut que les anciens o ñu jàppoo nekk benn jàppale ko pour mu mun a parce que il a du talent parce que boo xoolee équipe bi ah vitesse bu mu indi ci équipe bi ak solidité bu mu indi ci équipe bi ak cohésion bi ah ak intensité bu mu indi ci équipe bi franchement il a du mérite c'est un gars à encourager te en commençant par moi man je suis à cent pour cent derrière lui jàppale ko bu baax a baax a baax incha kontaan nañ ci yow. ok moo ngi am. waaw mbégte rek ak contentement comme ni may waxee rek on refait la match on refait le match mooy émission bi nga xam ni saa yu Sénégal joué dañ koy jouewaat waaw man nag ñëw seet si l'international Moussa Badiane muy sama idole di ko ziar di ko nuyu. as maa ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm di kontaan sa ñëw bi ah, di kontaan aussi vraiment ki la muy sama doom di sama sëriñ sëñ Modou nga xam ne turandoo mooy sunu lépp vraiment kontaan naa. waaw jërëjëf Moussa Turando mooy suñu lépp loolu moom wax nga ko parce que wax dëgg yàlla sëñ ab yëpp mooy suñu yaakaar di suñu yaakaar àdduna ak alaxira waa di am mbégte rek di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wër di ko ñaanal képp doomu aadama di wax ni rek émission on refait sama euh, on refait la match mooy match Sénégalu démb bi musa muy match boo xam ne mën nañu wax la match bu bu am solo la woon ci Sénégal ak l' entraîneur euh, muy première chanam tey jii nii nag ma ne damay def on refait le match ci anciens internationaux yi nag ma ñëw tey ci kër Moussa Badiane bëgg a wax ak moom di ko wax nag mu wax ma ban jàngat la def ci matchu démb bi. waaw euh, xanaa d'abord di euh, féliciter l'entraîneur Pape Thiaw di suñu rak di suñu coéquipé di suñu xarit di content euh, trop ci victoire yu démb bi di féliciter joueurs yi aussi di féliciter fédération bi di féliciter aussi toutes les anciens footballeurs du Sénégal parce que ñoom aussi dañ see bokk am si cër donc bu ñuy féliciter il faut ñu boole leen ci. Euh, match dem bi nag aussi c'est un match bu nga xam ne nii xam ne du yomb Sénégal Côte d'Ivoire moom ñëpp xam ne du yomb parce que noonu la mu sa demee donc euh, moi je pense que hier euh, on a joué un premier temps bi nga xamee ne xaw na métti si ñun mais c'était normal ba si fin premier mi bi aussi on a vu vraiment des occasions pour les Ivoiriens mais la défense sénégalaise a bien tenu le match ba ñu dem en 0-0 en en premier mi je pense que nag gën am solo si match bi mooy bi ñu duggee en deuxième mi-temps gis nañ dal benn xarkamu Sénégal euh, je pense que euh, Pape Thiaw euh, jàngat na premier mi-temps bi bu baax a baax a baax indi ay rectification yi nga xamee ni moo tax xale yi en deuxième mi-temps ils se sont bien comportés boo xoolee sax en deuxième en deuxième mi-temps c'était un match sens unique on a vu que Sénégal sur le plan de l'engagement sur le plan de jeu sur le plan tactique et sur le plan beaucoup yi nga xam ne mooy match waroon na sax un zéro mais bon l'essentiel c'est de gagner en premier match on a gagné mais daal li mu apporté en deuxième mi-temps ñëpp gis nañ ko et vraiment loolu la ñuy saluer ci entraîneur et di wax na rek euh, prochaine fois aussi ñi xale yi entamé deuxième mi-temps bi nañ fexe entamé ko en premier mi parce que football dafa xaw a tëridi ba nga xamee ni euh, boo fekkee da ngay réagir en deuxième mi-temps premier mi-temps aussi tu commis des erreurs euh, entraîneur bi def identification xale yi soo a yeewu moi pense que nag prochain match nii entame en deuxième mi-temps bi noonu la ñu war a commencer en première waaw dëgg la comme ni nga ko waxee rek euh, noonu la parce que tey jii nii li mu la wax ci football rek jàpp ko ndax moom euh, def na ay jaloorem def na ay empreinte ci football parce que tey jii rek maa ngi fii ci biir këram mais gis naa fi ay photo yoo xam ne xam naa du ñàkk après parce que boobu ci beneen émission la war nag mais du ñàkk rek ñu ñamal leen ci tuuti waaw di wax ni rek euh, ci Pape Thiaw tamit dinaa ñëwaat ci moom parce que comme ni nga ko waxee rek en deuxième mi-temps équipe bi gën indi na ci beneen xar-xar kanam tamit gis nañ Pape Thiaw tamit onze ans Sénégal qualifié wul CHAN mu ñëw nekk entraîneur qualifié équipe nationalu euh, équipe nationale Sénégal ak mën naa wax ni ak euh, CHAN bi Euh, compétition bi deux équipes la yóbbu parce que première équipe bi nga xam ne moo qualifié loo équipe bi du équipe boobu moo dem ci CAN bi parce que équipe boobu daanaka genn wàllu joueur yëpp après dañoo am contrat dem à l'étranger di jouer te ñooñu dootuñu am euh, pour qualifier pour mën a jouer ci ci ci ci CAN bi dafa defaraat beneen équipe dem ak beneen équipe tey jii ñu gis nañ ko tamit mu def premier match boo xam ne match bu baax la comme ni nga ko waxee gagné tamit une grande nation muy la Côte d'Ivoire tey jii nii lan nga mën a wax tey ci Pape Thiaw waaw li may wax si Pape Thioro xanaa di ko encouragé xam ne mi ngi si mi ngi si yoon euh, mi ngi si yoon parce que wax nga ko c'est pas facile nga am benn groupe nga qualifié ak moom euh, CAN bi CAN bi commencé euh, soixante quinze pour cent joueurs yi am contrat te si kaw loolu aussi mënoo si dara parce que c'est des joueurs locaux yi nga xam ne aussi ils sont aspirés à être des professionnels loolu mooy seen liggéey donc en tant qu'entraîneur bu xale amee contrat da koy bàyyi mu dem mais grandeur bi nga xamee ni am na ko ak liggéey bi mu def ak xarañte bi il a pu remobiliser defaat benn équipe bu bees c'est pas facile si benn temps bu gàtt. Mhm. et je pense que tey jii boo xoolee équipe bu démb bi nga xam ne vraiment am na qualité am nañ jeu am nañ engagement ça veut dire que empreinte am feeñ feeñ na si équipe bi. Mhm. je pense que nag dañ koy ñaanal yàlla rek aussi si dynamique bi mu nekk mu continuer ko xam ne ne aussi daal mu ngi est en de fair un très bon travail li ñuy def rek mooy di ko encourager di ko félicité mhm. et di ñaan yàlla aussi di mu lépp lu mu def rek naka xeep xam na ni aussi. Euh, continuer leen koy ñaanal et puis mu dara ban a ban ko enflammé nga xamee ni mu resté sur place te lañ ko xamal je pense que euh, bu nekkee ci dynamique boobu rek yàlla na ko defal sutura parce que xale la ba nga xamee ni day déglu nit ñi respecté nit ñi jox nit ñi cër man mi ngi nii sama ginnaaw kër mais bon vraiment léeg la ñu gisante bu la gisee mooy daw jox la cër moo tax kon victoire démb bi vraiment dañ ci kontaan di ko encouragé encore dëgg la jërëjëf di ko encourager encore comme ni ñuy wax rek sur Asmoon TV révificateur des valeurs di wax ni rek defuñu lu dul rek comme ni ñuy def rek ay émission yoo xam ne nag bëri na ñi ngi ci Moussa parce que ñi ngi ci ay émission sama CV bi nga xam ne tey jii nii dañ nekkoon à standby parce que dañ ko war a gën a mën a defaraat parce que ni ñu ko doon defaree sax am na ci ay réclamations yoo xam ne sax peut-être xëy na leeralu ma ko euh, AIFS ak euh, ak internet yi parce que des fois am na émission sama CV yoo xam ne day am yenn yenn yenn yenn chaîne yenn chaîne YouTube yoo xam xam ne sur le plan international dañ ciy gis seen bopp defe ni sax bon dañ leen di copier te fekk boobu affaire bi demeewul demeewul noonu moo tax rek dañ koy gën a gën a gën a gérer gën koo professionnaliser maanaam gën koo assurer parce que am na émission yoo xam ne tamit war nañ dem au niveau de euh, a maanaam pour gën ko sécuriser parce que loolu tamit da ciy baax parce que copier-coller yi moo bëri parce que des fois maa ngi jéggalu nag ci kàddu googu mais émission nit ki dañ ma koy wax dañ naan ma koy euh, ma koy maanaam sécuriser. Mhm. waaw ci sur le plan ci côté ci ak yooyu mhm. parce que am na yoo xam ne bu duggee ci seen YouTube bi des fois mën nañ lay bloquer ak yooyu yëpp mën na ci nekk daal moo tax ñu ngi ci ñu ngi ciy liggéey ak staff bi waaw di wax ni rek Asmoon TV dem na ci niveau boo xam ne macha allah wax dëgg yàlla internationaux yi ñoo ma ko permettre ñoo tax ma àgg foofu moo tax naa ngi gërëm AIFS yëpp di ko teg ci loxo la président Cheikh Ahmed Tidiane Seck bàyyiwuma kenn su ma ko joxee turam rek fois day am ñoo xam ne Moussa dañuy soxla nga tudd seen tur boo tudd seen tur des fois ñu am lenn loo xam ne dañ koy fekk affaire bi demeewul noonu mais <laughs> ñëpp bàyyiwuma kenn Moussa te tamit dinaa dinaa ñëwaat ci moom tey jii nii ki ma ñëw sama idole la dafa am loo xam ne daf ko def ci man waaw koo xam ne tey jii nii comme li may wax bi may ñëw jaraaf falaa ko fekk nekk xale bu ndaw mais dafa ñëw mu teg ma ci yoon tey jii nii après mu dem bi mu demee man la fa bàyyi après jox ñu lenge yi tamit teewul tamit lenge yi yàqowul suñu loxo def nañ tamit jaar ci ay tànkam yàlla def na tamit ñu demaat ba bokkaat équipe fële ca euh, Liban bi ñu demee tamit bi ñu joué une année ba année bi jeex tamit bi ñu paree dafa ne ma as ana li nga yor ma ne waaw parce que man ak moom a fa nekkoon ak mm-hmm. euh, entraîneur Malick Daaf mm-hmm. waaw ñoo fa nekkandoo woon mu rafet lool suñu diggante ci ñun ñëpp muy nekk samay grand yoo xam ne wax dëgg yàlla mm-hmm. dama leen di remercier fu ma toll muy Malick Daaf di Moussa Badiane waaw di wax nii rek euh, loolu moom sama ay idole lañ du mës a dañ waaw àdduna moom du ma jey ba ma nekk ci beneen lu dul nekk seen raq waaw loolu moom ci la ñuy nekk mais bi ñu paree dafa ne ma as anamu ma ne ko mi ngi nii mu ne ma indil ñu ñëw mu ne ma dencal ma denc ba ñu ñëwee ba Sénégal mu may ma deux jours après ñëw kër ga ne ma acca nañ dem wari kër tey jii ni kër gi nga xam ni tamit moom laa am fii ci Liberté cinq moo nekkoon témoin kon encore une fois micro laa yore tey jii nii damay wax rek grand dama lay rendre hommage di la wax rek fu ma toll rek fu ma la gis rek image yooyu mooy ñëwaat ci man encore une fois merci grand frère. Ah, yaa baax rek yaa baax nekk nit ku baax neex nit ku neex a nekkal ku neex a ndax euh, bitim réew bu la neexoon. nga ñëw li doon say grand tamit da ngaa am contrat ñu am contrat mais yow da jël lépp teg ko fële euh, bëggoo ñu def dara si kër gi ñu nekkoon bëggoo ñu kii dara lu ñu ne nga ne grand bàyyi nga nekk xale bu baax xale bu neex a dëkkal man dama naan euh, as yéex nañoo bokk sax équipe ndax comportement bi nga nekk bi nga am ak euh, ni nga mën a joxee sa cër say grand donc loolu aussi mu nekk la nga xamee ni faaw ñoo ko Sénégal yëpp xam ko yow lu baax rek ngay xol la te xol sa xol yaatu na yéene nga nit ñi lu baax te lu may àdduna yàlla yàlla yàlla du jum nit euh, xot la rek waaye boo déggee ñu naan nit xol baa tax ñuy wax ndax xol mooy diriger doomu aadama et yàlla jox na la ko ndax dëkk yombul boo dëkkee ak nit ki rek bu la neexee gisee ko très rapidement ndax yéen a yeewandoo di demandoo di ñëwandoo kon boo dëkkee ak nit ki ba war a wax si moom rek na nekk li ngay wax si moom na nekk li may wax si yow nag moo nekk du question tey jii li ñëw sama kër wala tàllalu micro mm-hmm. di ñaan yàlla rek yàlla sàmm la sàmm sa njaboot yaa xam li nga bëgg yàlla na ko yàlla defal te mu gën si yow eh, nga fekk njëriñu njaboot gi yëpp eh, di ñaan yàlla seen bi aussi ñu dem ba mu koy dégg si le plan international ndax li nga li gën a neex mooy ngay def lu nga xam ne da nga xam mën ko mhm. tey jii boo defee seen sportif nga nekk ancien sportif mhm. def si Sénégal lu ne kenn du fàtte ces trois heures trois buts contre Tunisie kooku kooku histoire daf koy ça benn match international nga qualifié loo équipe bi dugal si trois buts kenn du ko fàtte la nga def ci Liban tamit ma ngi ciy coow ak Qatar ak Arabie Saoudite donc yow loo def si sport rek war nga xaa def loo am si sport war nga am loo wax si sport war nga xaa wax kon tey jii boo demee ba def euh, chaîne yoon chaîne ba nga xamee ne pour sport la war nga xaa mën a def loolu nag daf ni permettre tey jii lépp lu ñu lënd moon ak lu ñu dul gis ñu ngi lay gërëm la sant ndax tey jii yaa ngi ñuy génne yaa ngi ñuy wane yaa ngi génne tamit aussi ay image yi nga xam ne bu du woon yéen ko gis bu du woon yow ko gis di ñaan yàlla vraiment li nga wax rek tey jii une association boo nuyee président nuyu nga ñëpp dëgg la jaloo lim boo nee parce que c'est la personne morale de de de de de l'association mmh. boo nee maa ngi nuyu président Cheikh Seck rek jox naa ko si loxoom rek mooy nuyu nga ñëpp mmh. waaw kon nag moi je pense que tey jii encore une fois maa ngi appelé suñu président muy Ahmed Cheikh Tidiane mu jàppale la ba bi jëkk ci mën na ko am na yéene bi te def day def lu baax te je pense que tey jii euh, li ma koy lancer appel aussi moi je pense que dina ko def parce que suñu grand la suñu suñu lépp la mm-hmm. waaye vraiment war naa gën a mën a jàpp si chaîne bi chaîne bi avancé incha allah te dina def incha amin amin waa noonu la doo grand moom nii rek la mel waa di wax ni rek comme mooy on refait le match sur Asmoon TV mooy match Sénégal tey premier match la xam naa ni deuxième match yi tamit dinañ dem ci internationaux yëpp dinañ wër yëpp def ci def waa incha allah pour def ko rek di wax ni rek euh, damay àndal rek euh, sama sama le grand caméraman rek Modou Habib waaw ah sunu sëriñ waaw Modou Habib waaw rek dem seeti beneen international acca ñu dem jërëjëf kontaan nañ trop. Oh. grand frère kontaan nañ trop. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw rek di wax kontaan rek euh, ci réaction yi nga xam ne tey jii nii moom laa demoon fële ci anciens internationaux yi ñuy seeti woon ñu am ci contentement ma am ci mbégte lool nag wax dëgg yàlla di leen tàllal micro di wax ni rek lii rek mooy sport lii rek mooy football ñu lu dul rek. Euh, pour rek di leen wan lu rafet di leen wan li ngeen bëgg ci ci sport bi waa mbay gis nga seetaan nga sama gars yi gis nga les anciens internationaux gis nga seen réaction waaw xam nga as loolu daf ciy baax parce que loolu itam dafay may xale yi jom ndax xale yi anciens internationaux yi bu ñu wax ci ñoom parce que ñi nga lim nii ñu man ay Moussa Badiane ay année quatre-vingt-treize année quatre-vingt-quatorze xale yi euh, ñooñu ñooñu mooy ñooñu ñooy seen référence parce que duñ xool Sil Bokandé ni mooy seen référence parce que euh, mën na am fekkewuñu ko wala xooluñ ci xool Omar Gueye Sène ñoom musaa Ndiaye ñoom Badra seen yooyu ñoom Moussa Badiane ñooñu ñooñu ñooy ñooy référence xale yi ba tax na bu ñuy dem ci compétition dañuy soxla anciens internationaux yi di joxe seen xalaat ci équipe bi parce que loolu mooy motiver xale yi loolu euh, dañ ko war a def toujours saa bu ñuy am mars anciens internationaux yi dañuy génn di wax parce que am na ñoo xam ne bu ñuy wax dañ leen di déglu parce que kii sol maillot Sénégal football euh, équipe nationale tournoi bu nekk mu joué ko suy wax ak nga xam ne actuellement moom mooy sol bi kooku war na ko mën déglu ba tax ne réaction yi anciens internationaux yi après mars ak avant mars Euh, dafa baax xale yi di ko gis euh, di am lu ñu ci jàngate. waaw comme xale yi di ci jàngal rek muy contentement di mbégte as moom chaque jour rek ci yooyu rek la ñuy dox defuñu lu dul rek di promouvoir suñu football local ma bàyyiwuñu sax. beneen championnat parce que am na ay émission yoo xam ne ak mon expert mbay fajaa parce que moom tey jii nii loolu bëgg naa sax mu leeral leen ko parce que maîtriser na fépp jour Sénégal buy joué ci championnat ci monde bi rek xam na fi muy joué ak prestation yi muy def yooyu yëpp ay émission à venir la ci Asmoon TV révificateur des valeurs muy chaîne bi xew nag ñu bëgg nag ngeen i abonné ci chaîne boobu di wax ni rek ñu ngi ci fin wu émission bi rek xanaa ma wax rek euh, tey jii nii message ngay sànni ak sa kàddu gu mujj. waaw message bi may sànni mooy xale yi match bi ñu joué démb ñu préparé wu bu baax te xam ne match bi ñu joué Ouganda mooy gën a métti ndax Ouganda dafa match nii ak RDC wax nga ko léegi kon Sénégal dafay wut foofu benn point ba trois points Ouganda it dafay bëgg a wut trois points kon dina métti te ñaari équipe yi xamante woon nañ ndax daje woon nañ ci COSAFA bi def match nii mm-hmm. ba dem tiro bii Sénégal door ko gagné. te am na ci ñoo xam ne xëy na des nañ ci équipe bi boobu ba léegi mooy ku mel ne Moussa Ndiaye ku mel ne euh, Lamine Camara euh, faati moom mi ngi ci banc bi démb euh, Moutaaru Balde aussi mi ngi ci banc bi mais Cheikhou Ndiaye itam aussi joué na démb Cheikh Omar kon mën nañ ne Sénégal Ouganda boobu xëy na dinañ xamante tuuti ndax Pape joué na ak ñoom mm, il y a mois ci ginnaaw ak ak CFA Cup bi kon nañu gën a góorlu discipline bi ñu bi ñu defoon démb suñ ko suñ ko defaatee ci biir terrain bi mm, dinañ ci parce que am nañ joueur yu am métier boobu démb vraiment boo xoolee équipe bi di nga xam ne am na joueur yu am métier yu ci nekk discipline bu baax lañu joué ba pare métier bu baax la ñu wane suñ ko defaatee contre Ouganda kon qualification dina am mm-hmm. waaw. jërëjëf Mbaye kàddu yi rafet na jàngat bi rafet na. nii rek nga mën a mel kontaan naa ci yow le grand expert mbay Fadia di wax nii rek ñi ngi gis commentaire yi ci yow tamit euh, gars yi di di apprécier say say say say analise waaw di wax ni rek continuer ci loolu waaw di wax ni nag euh, nañ ma ko bàyyi nag sama ndaanaan bi balaa ñu koy balaa ñu ma koy nangul waa di wax ni rek euh, Asmoon TV mi ngi noonu incha allah dans l'avenir di ngeen gis yeneen yeneen yeneen plateau di ngeen gis yeneen émission parce que am na émission bi nga xam ne mooy sama CV mooy émission bu boobu émission bu riche boobu bi nga xam ni damay retracer la carrière des anciens internationaux de football mu nekkoon stand by temps yi yëpp parce que dafa amoon lu ko waral ndax am na benn sama CV bi nga xam ne dama ko def ak l'international Salif Diagne mu amoon ci ay réclamations yoo xam ne dafa ñëw ci man ñu xam nga rek ci loolu nag lañ nekk moo tax mu posoon ko xool xool nan lañ koy defaraatee ba nga xam ni incha allah du am benn problème di leen wax ni nii rek ci lii rek lay dox di wax nag euh, balaa may tëj rek damay damay ziar waa AIFS muy amicale des internationaux de football du Sénégal le président di Cheikh Ahmed Tidiane Seck le premier vice-président. El Hadj Ousseynou Diouf les vice présidents yi nga xam ne tey jii ñoo nekk ci région yi muy région de ces di Albourirax di ko bëggee di ko ziar fële ca Diourbel di Thierno Tall di ko ziar di ziar Atanas Tendeng fële ca Ziguinchor di dem fële ca maanaam ca Kaolack rek di ko di ziar euh, euh, sunu euh, sunu grand muy Mass Faye xam naa su ma ko joxee nuyoo bi rek dina àgg ci ñëpp waaw di dem Louga fële ci Matar Wade Ndoye moo grand frère gëj naa la gis grand waaw maa ngi lay ziar bu wér wér a wér di la bëggee bu wér a wér a waaw di dem nag di ñëw nag ci sa moo moo nidool mooy grand Boubacar Sarr Loxot fële ca France ñu ngi koy nuyu di ko ziar di di ziar ñëpp mooy ñi nekk ci diaspora bi bàyyiwuñu kenn nag bàyyiwuñu kenn ci diaspora bi parce que ma ko tegee ci euh, Boubacar Sarr la ko rek mel na ni teg naa ko ci ñëpp di ñëw nag fii ci sama gars di leen béggee nag di leen nuyu di nuyu Souleymane Bara Famba ko dégg muy l'entraîneur équipe nationale muette bi tamit moom xam naa war nañ def tamit ay émission ci moom waaye xam nga rek moom faw may nëbb léegi parce que xam nga rek copie collé bi moom dafa bëri te xam nga rek télévision yu mag yi moom am na ay émission yoo xam ne ci man euh, damay bañ ñu koy jël parce la ëpp doole moom moom da ngay nëbbatu damay dal seen kaw. waaw waaw émission passée de waxtaan nañ fi ne saan bi pour jëmal ko. Uh-huh. Euh, dañ ci war a boole ñi ñi nekk Tunisie wala Maroc. dëgg la ku am jour bu nga xam ne mu ngi ci biir continent bi da ko war a jël. te gis naa ne euh, yu bari bind nañ ko. dëgg la gis naa aussi am na rajo yoo xam ne def nañ ci émission tey. dëgg la waaw waaw <laughs> mi ngi noonu rek waaw mi ngi noonu Asmoon TV moom mi ngi noonu waa sax ñi koy suivre bëri na ci ñu ciy bëri waaw am na sunu ay émission yoo xam ne dañ koy jël dañ koy jël di ko modifier bëri na ci nag mais loolu sant yàlla la dama ciy kontaan su ma gisee sax ñuy def loolu parce que comme li ngay wax noonu gis naa ko comme championnat daaw bi gis nga di ma doon def gis naa après ay télévision yu mag di def di commencer di def loolu mais damay ñëw incha allah avec le temps. taxal ma noppi wax baaxul dama leen di jox dig daje rek ci prochain match incha allah jërëjëf. I'm from Vietnam. I like Admon TV. Senegal will win. I'm from Vietnam. I like Admon TV. Senegal, we win.